الحمد لله إخوة الإيمان درس اليوم قصة موسى عليه السلام والسامري sunu darsu tey mooy histoire Moussa ak Saamiri ci qisasul anbiya comme xam nañ Moussa dinañ def benn gendeeku bu ndaw rek ci kan mooy Saamiri boroom xam-xam yi nee nañ asaamiri yu saxsiya yahudiya saamiri benn jëmm la boo xam ne jëmm yahud la nit la ku bokk ci banu israil nekk yahud am na ñeneen ñu wax leneen waaye lii mooy li nga xam ne moo gën a wér moom Moussa Samiri mooy ki alquran nettali ay mbiram ci suratu taaha wa huwa alladi zukira fi alqurani alkarim fi surati taaha mooy ki ñu alquran nettali ci saar suratu taaha wa huwa alladi axwa axwa bani israil saamiri mooy ki bewloo ki réeral banu israil loolu kañ la ginnaaw ba Muusa demee daje ji ak boroomam jalla jalaaluhu sunu boroom woo ko Muusa dem génn bàyyi fa Saamiri saamiri daal di jël benn yëkk yëkk mooy nag mu defar ko nag bi di nàññi ci seen kanam mu daal ci réeral genn wàllu waa bani israil yëpp nan la leen réerale mooy bi Moussa demee def leen ne Moussa dem na bàyyi fi yàllaam gaay ne ko loolu nu mu nekkee mu ne leen ah dëgg-dëgg de Moussa dafa dem daje jeeg yàllaam waaye fii la ko fàtte da ko fee fàtte kon xissa boobu waa jooju di Saamiri moom la ñuy jël darsam tey digganteem ak Moussa alayhi salaam mu ne bi nga xamante ne Moussa dem na daje ji ak borom bi tabaraka wa taala mu bàyyeekoo ci montagne ba ca kaw mi ngi yaru ci ay loxoom loolu ñu naan al alwaax mooy ay alluwe yoo xam ne borom bi mu ngi ko ci bindal borom bi mu ngi ko ci bindal tawraat ay atem boo xam kàddoom Moussa bi muy ñëw dafa bég dafa kontaan lu tax ndax mi ngi bàyyi ko ci yàlla subhanahu wa taala waaye yàlla mu ngi doon wax ak moom waaye yàlla jox na ko kàddoom bindal ko ko ci ay àlluwe mu yenu àlluwe yi di ñëw mi ngi kontaan trop ci teral gi ko teram teral boromam teral mooy mu wax ak yàlla jalla jalaaluhu waaye bi muy ñëw rek yàlla xamal na ko ne yaa ngi dem nag waaye boo demee da nga fekk ci sa peuple lu la metti da nga fa fekk lu la naqari moo tax bi mu ñëwee dajeeg peuple ba dafa mer lu tax mu mer ndax da leen a fekk ñuy jaamu leneen lu dul yàlla dafa fekk ñuy jaamu nag sunu borom nettali ñu loolu ci suratu taaha aya 83 86 yàlla wax ci qur'an ne wa ma ajalaka an qawmika ya muusa قال هم أولئك على أثري وعج وعجلت إليك ربي لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وعدلهم سامري برم بنين فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا موسى يلا وونكو mu waroon ànd ak mbooloo mi dem wuy ji yàlla waaye comme moo xam kan moo ko woo mu dem baleen bi mu ñëwee yàlla ne ko wax ana ñu ngi waroon àndal mu ne bàyyi naa leen ginnaaw ñoo ngi ci yoon wi ñëw waaw lu tax nga def loolu mu ne yàlla dama yàkkamti ñëw ndax nga kontaan ci man waaye day boo demee ñibbi yow Moussa da nga fekk fitnaal naa say ñoñ say mbokk waa banu israil teg naa ci ñoom natt am na benn waaye bu tudd saamiri bu leen réeral mooy waa ji ñu doon wax sànq mooy kan ndeysaan bi ko yàlla waxee loolu moo ngi ci yoon wi yegg si di dem waaye mi ngi am naqaru xol rawatina nag ba mu ñëwee ba gis leen ñuy jaamu yëkk wa bàyyi yàlla loolu la nu borom bi ne faraja Muusa ila qawmihi gadbaana asifa moo ngi dem moo ngi mer waaye moo ngi découragé lu tax ndax nit ñoo xam ne Muusa li mu daj ci ñoom pour jàngal leen Muusa li mu daj ci ñoom pour yar leen Muusa li mu daj ci ñoom pour conscientiser leen ba ñu xam ne yàlla rekk lañu war a jaamu moom yaakaaroon na nit ñi pare nañ dootuñu bokkaale waaye nit ñi ci seen nature noonu la leen yàlla bindee dañoo bëgg a xërëm dañoo bëgg a doyadil seen bopp jamono ju nekk saamir yi moomu moom moo dajale ci alal joo xamante ne or la ak urus wala xaalis goo xam ne waa banu israil ba ñuy génn dañ ko àbboon takkaay yoo xam dañ ko àbboon ci copte ya misri égyptien yi bañ jëlee loolu génn ak moom ba nu demee mënatuñ koo delloo parce que traversé nañ géej gi yóbbaale nañ alal ji ñu daal di laaj seeni boromi xam-xam saalu ulamaahum an hukmi haazal zahab ñu laaj seeni borom xam-xam atte urus woowu ñu jël alal jooju lan moo leen ciy fekk seeni borom xam-xam ne leen alal ji dafa araam daganul kon amu leen droit garder ko ñu daal di koy sànni biñ ko sànnee fa axadaha saamiri saamiri daal di koy jël ba mu ko jëlee daf ko utiliser comme moom yàlla mayoon na ko muy ko xereñ wa kaana ahadu ulamaihim kenn la woon ci seeni borom xam-xam yi nga xam ne dañoo mën a yat dañoo mën a defar estati estati ñu daal di mu daal di koy jël alal jooju or boobu mu daal di koy jël daal ci defar benn nag mu def ko benn forme yëkk defar ko ba mu rafet waaye léeg-léeg sax yenn ci borom xam-xam ñu ne bi mu ko defaree ba pare dafa jël tànku jibril fa mu daan dëgg ci suuf si mu daal koy def ci gémmiñu nag bi nag bi di commencé di nàññ am ñoo xam ne wax nañ leneen ñu ne ba mu ko jëlee ba mu defaree nag bi ba pare dafa am benn système bu mu def nag bi bu ngelaw li mu jël gé ginnaaw nga nag bi mu jublal ko ci géej gi comme ngelaw li foofu lay ñëw su ngelaw li jaaree ci ginnaaw nag bi daal di dugg ci biir bi rek gémmiñ gi day ubbeeku nag bi di nàññ am ñoo xam ne loolu lañu wax ne loolu la def mais jëlul fasu tànku jibril fa mu doon dëgg def ko ci gémmiñ gi almuhim lu ci mun a nekk defar na nag boo xam ne nag bi day nàññ nàññ mooy day yuuxu ah xam nga jooyu nag dañ naan nag day nàññ ñu ne xar day mbee mbaam day ŋaax muus day voilà kon bu nekk da ngay dégg ñu ne nii lay def nag nag da doon nàññ nag bi dafa nàññ loolu noonu mooy noonu nag di jooyee loolu mooy nàññ ba mu ko ci defee mu ne leen yàlla Moussa ngi nii Moussa dafa dem bàyyi ko fi bi gaa yi gisee nag bi di nàññ ñoom ñëpp ñu tàcc ko jibile allahu akbar Moussa bi muy dem dafa dénkaane woon ginnaawam mu ne Haaruna na ko wuut mooy rakkam Haaruna bi mu déggee yuuxu yi mu génn mu ne Samiri lii lan la Samiri ne ko lii day mooy yàlla Muusa haza ilahukum wa ilahu Muusa lii seen yàlla la yàlla Muusa la waaw gars yi ne ko kayfa yakunu ilah haza ilaha li naka la nekkee yàlla Moussa wa qad zahaba Moussa li miqaati ilaahihi naka la nekkee yàlla Moussa mu ne ah loolu mën a am moom yàlla Moussa la Moussa moo dem fàtte ko fi laqad nasiya Moussa Moussa dem na fàtte fi yàlla am Samiri yi noonu la réerale waa banu Israil jaamooloo leen nag bàyyiloo leen yàlla tabaraka wa taala muy lu metti Haarun ginnaawam waaye munu ci dara ndax peuple bi topp nañ Samiri ñu jaamu yëkk wa yëkk woowu nga xam ne dañ ko defaroon ci alal jooju nga xam ne waa banu Israël ba ñuy traversé géej gi dañ ko yóbbaale woon waaye Haaruna mer na ci mer bu méttee méttee métti tàmbali na di leen tere waaye munu leen munu lu leen dara nit ñi dañoo xaaju ñaaru xaaj am na ci ñoo xam ne ñoo gën a tuuti ñooñ ñoo nangu xam ne lii du yàlla ñu nangul Haaruna balaa Moussa ñëw li ëpp nag ci nit ñi ñoom dañoo topp nag nag wa ndax lan nàññ gi muy gis gi ñu gis muy nàññ ak melax bi muy melax bu ci jant bi tàppee nekk or ñu daal di topp yàlla boobu di ko jaamu bàyyi yàlla tabaraka wa taala Haaruna xamal leen ne lii du yàlla lii kenn waru koo jaamu walakin aksar annas abadatil ijla lépp ci nit ña jaamu nañ nag ba mu ne wasalla haaruna alayhi salaam yansahu lahum wa yaqulu lahum ya qawm innama futitum bih wa inna rabbakum arrahman fattabi'uni wa atiu amri haarun wax na ba sonn alxuraan mënu nettali loolu ci suratu taaha ba tey aaya 90 haaruna dafa taxaw di leen woo yaa qawm yéen samay nit innama futintum bi lii day nattu la rek bu leen yàlla natt seytaane leen këf waaye lii moom du yàlla su ngeen bëggee xam kuy seen boroom inna rabbakum rahman seen boroom mooy yàlla mooy rahman topp leen ma dégg leen sama ndigal wa ati u amri haza laysa rabbukum lii du seen boroom wala rabbu Muusa lii du yàllaay Muusa fa rabbukum rahman seen boroom mooy yàlla waaye mbokk yi doomu aadama yi ñu bari ci ñoom boo leen di tere bokkaale daanaka yenn saa yi sax dañ lay bëgg a rey ndax bokkaale ni mu saxee ci seeni xol ak seeni deret walakin al qawma lam yastajibu li haarun nit ñi nangu lu ñu haarun wuy wuñ ko sax déglu wuñ ko waaye moom bàyyiwul aussi kuy liggéeyal yàlla doo découragé ñoom moom nurawul ak nun lenn saa yi da ngay wax wax tuuti tuuti rek nit ñi daal di lànk rek nga découragé daal di ah sonn na déedéet kuy liggéeyal yàlla doo tayal haruna dellu di baamtu di wax pour musal leen haruna fàttali leen démb bi leen yàlla nattoo ci firawna firawna di leen teg mbugal yoo xam ne kenn munu ko misaal di rey góor ña di bàyyi jigéen ñi di leen liggéeyloo daf leen ay jaam guddeeg bëccëg ñuy liggéey 24 heures sur 24 amul noppalu loolu lépp haaruna di leen ko fàttali fàttali leen xéewal yi leen yàlla defal ba ñu xiifee muy ni leen mën naag salwa ba ñu maree mu daldi ballal xeer wa ñu daldi naan ba màndi ba ñu doxee ci tàngaay bi mu keral leen ci niir wa ba leen firawna sonalee yàlla labal firawna ci géej amul lu Haaruna waxul waaye mbokk yi xam ngeen lan la waa banu Israël tontu Haaruna balaa Muusa ñëw qaalu lan nabraha alayhi aakifiin hatta yarji'a ilayna Muusa bu yeboo nga noppalu da ngay sonal sa bopp gis nga nun fii la nuy bóof ba Muusa ñëw fekk nu fi xam ngeen bóof mooy lan ah booy séeréer xam nga bóof dafa mel ne xamoo ko de yow nag xam nga bóof yow xalifa bóof mooy lan mooy fii la ñuy toog ne ngufur suñuy tànk ah sëgg fi ba Moussa ñoo fekk nu fi ci yàlla bi mooy comme gars yi tey ni ñuy defee rek ci seen kilifa yi nu ñu naan kofar ñun noonu si mi mbax na yi si mi dàll yi daal di ngurfaanu ne kofar loolu mooy boofu ñoom nag buñ ko defoon sax ci nit musiba la waaye imagine ñu dem di ko def ci nag ñu ne ko fii la nuy boof ba Moussa dellu si fekk nu fi dara nga nu mënalul ndeysaan kaana min alwaadih anna haruna alayhi salaam kaana sahlan layinan wa lidalika kaana alqawmu la yaxaafuuna minhu loolu nag day am léeg-léeg ci wootekat yi ak ci yonante yi dafa am ñoo xam ne dañoo nooy wax ju nooy la ñuy wax du ñu tàngal même ci ustaas yi wootekat yi du aadi noonu la mel am na ñoo xam ne ñoom seen seen woote yëpp targhib fadailul amal waaye am na ñoo xam ne comme Moussa lañ mel Moussa daa tàng jër am ñoo xam ne comme Omar lañ mel Omar dafa tàng jër moo tax yonent bi keroog ndeysaan Asra Badr bi mu wooyee saxaaba yi Aboubacar wax mu ne ndeysaan kii de mu ngi mel ne Isa Isa dana woon jaami yàlla yàlla ñii kat xam nga ne man jaamuñ ma woon yow xam nga man xam naa yàlla ñi boo leen baalee say jaam lañ boo leen buggalee say jaam lañ yàlla mu ne abubakar a ngi mel ne isa mu ne ali kaay wax ali ne xam nga nooy def da ngay jël say mbokk nga rey nga jox ma samay mbokk ma rey nga jox omar mbokkam mu rey nga jox ousmane ay mbokkam mu rey mu ne aw kii ne mi ngi mel ne moussa ndaa noonu la nit ñu mel ku nekk ak sa nature ñi dañoo sedd ñii tàng waaye yàlla dafa def haaruna moom ku sedd la woon moo tax nit ñi ragaluñ ko lim leen di wax yi faalewuñ ko yëgaluñ ko sax seen yaram ndeysaan ba tax nit ñi ragaluñ ko waaye ay minutes fa isa bi Moussa alayhi salaam yarji'u wa huwa fi qimmati alxadab Moussa ngi dellu si waaye mu ngi ci some mer mu ngi ci jëbi dafa mer ba daanaka xol bi mu ngi ci gémmiñ gi mi ngi naqarlu lii waa banu Israël def mais jaadu na xool leen Moussa li mu daj ci waa banu Israël ak fi mu jaar ak ñoom ci tawxiid fi mu jaar ak ñoom ci yàlla ak kéemtaan yu ñu gis banu Israël ñooy xeet woo xam ne lu ñu gis ci kéemtaan ci àdduna kenn gis ko ak yi leen yàlla defal ci ay xéewal defal ko benn xeet waaye noonu lañ bonee moo tax ñu wow la dëgër bopp Moussa bi mu ñëwee deful rek lu dul taxaw ci kanamu yëkk wi mu ne waa lii lan la gaa yi ne ko ah saamiri de nii leen li ne lay mooy sa yàlla moom nga doon jaamu Moussa daal di yuuxu seen kaw ne leen bi sama xalaftumuni min baadi yéen a bon li ngeen def sama ginnaaw lii ngeen fi def amu leen lu ngeen def lu dul di jaamu xërëm di bokkaale bi sama sanaatum fi giyaabi yéen a bon li ngeen def sama ginnaaw yéen yéen a ma wor yéen a wor seen boroom yéen a wor seen diine Moussa foofu muy wax ak ñoom rek Moussa daal di sànni alluwa yi yàlla joxoon ndax mer gi mu mer ndax bokkaale gi nga xam ne nitam yi dañoo bokkaale woon yenn borom xam ñu ne dafa jël alluwa yi daal di koy sànni nag bi nag bi daal di tàkk ñenn ñi ne non non moom kay alluwa yi ni mu leen gàdda woon rek noonu la leen bàyyee ñu daanu ndeysaan bu leen fàtte ne alluwa yi lan lañ ci bind mooy tawraat ndax mer gu mu mer mu daal di avancé rek jëm ci kanamu Haaruun mi nga xam ne mooy rakkam fekk mi ngi mer ba léegi mu ñëw rek daal di ne Haaruuna zacc poñe ci dënn bi xëcc ko mu ñëw xanaa loolu doyoon na mu ne zacc ci kawaru bopp bi beneen loxo bi mu bàyyi dënn bi fi mu jàppoon mu ne zacc ci sikkim bi jàpp ci kawaru bopp bi jàpp ci kawaru sikkim bi këcc ko mu jege ci moom kooku ne ko bu ma rey man dara laa ci moom dafa jàppoon ne kooku complice la ndeysaan mu ne ko maa manaaka is raaytahum dallu allah tattabiini afa asayta amri a yow mu yow haarun lan moo tere woon ñoom ba nga leen gisee ñu jàdd lan moo tere woon tere woo leen ba nga gisee ñu réer lan moo tax tere woo leen lan moo tere woon ngeen topp ma ah yow dama la fi bàyyi ne leen remplacer ma fi nga ànd ak ñoom ngeen di bokkaale ndeysaan naka nga mën a nekkee ci musiba bu mel nii yow Haarun naka nga leen di bàyyee ñuy jaamu xërëm lu tax weddi woo ko lu tax génnoo nga bàyyi leen fi yedd ko lu bare bari mu wax ko attaqué ko Haarun ndeysaan yàlla nettali ñu lan mooy tontu Haarun ci suratu Taaha ba tey aaya 94 borom bi ne qaala yabnu umma لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي yow doomu ndey ndeysaan yow doomu ndey lépp ci nit ñi boo xaritoog ñoom sax xaritoo bu yàgg bu dëgër luñ la wax doomu baay luñ lay wax doomu ndey am na kenn ci kibaaru duaat yi ci mag nga xam ne ay wootekat lañ ndeysaan suy def darsam wala muy def conférence danaan yéen doomi ndey yi nit ñi déglu mu ne leen yéen doomi ndey yi maanaam loolu dafa am cofeel gi muy def diggante kiy wax ak ñi koy déglu ndax ndey dafa bëri ëmb yërmande moo tax Haaruna ne Muusa yow doomu ndey bul jàpp ci sama sikkim bul jàpp ci sama bopp bi bu ma gaañ yaa ngi naan lan moo tax ba ma leen gisee ñuy jaamu xërëm terew ma leen damaa wax ba sonn tere naa leen nga ne lu tax génnu ma dem bu ma génnoon ànd ak ñenn yi ñu dem boo ñëwee da nga naan diviser naa peuple bi moo tax ma toog rek muñ xaar ba nga ñëw ndeysaan wallaay damaa wax ba sonn dañ ma ëpp doole rek dara laa ci mënul ah comme léegi haaruna indi na ngant wax na wax joo xam ne tamit dëgg la yàlla xam na ne dëgg la sonn na ci dara la ci mënul leeralal na Moussa lan mooy position am ci yedd gu mu leen yedd ak jaar gu mu jaar ak ñoom wax bu mu leen wax lu ne wax na ko waaye ñu féttéerlu mu ne ko sax nit ñi dem nañ innal qawma stadafuni yow doomi ndey xanaa xamoo ne nit ñi lottloo nañ ma wa kaadu yaqtulu na ni tuuti ñu rey ma am na benn moment damaa wax sax ñoom ñëpp seeni jaasi lañ jël tuuti nga fekk fi may néew waaye waaye dëgg-dëgg fala tusammit bi al aada wala taj'alni ma al qawmi zalimin xam nga dafa am benn xew-xew buy xew ci kër problème yooyu bu amee yenn saa yi ñenn ñi dañuy reetaan ña leen doon tere wala ña nga xam ne demuñu woon seetaani yéen a ngi dégg xool leen Haaruna ni mu waxeek Muusa ay waaye yow doomi ndey wala tusammit biyal aada bul ndokkeel nit ñi sama kaw loolu mooy lan loolu mooy lan bul tax nit ñi ndokkuma voilà maanaam tuuti loolu nañ ma ba pare yow nga ñëwaat di ma toroxal nii seen kanam lu ñuy wax très bien gis nga xool nañ ko ko dégg bul bul tax gaa yi waxaat ma loolu man kay liñ ma doyadil dog na xanaa naroon nañ ma rey yow nga ñëwaat poñe ma nar maa reyaat waaye tamit bul def loolu ndeysaan ñaareel bi mu ne ko wala tajalni ma alqawmi zalimin bul ma boole ci yéeféer yi man kay bokkuma ci ñooñu man ak ñii nga gis ni ñu taxaw ñun ñi dong ñoo fi nekkoon ñu jaamuwul nag bi ñii ñëpp ci lañ bokk fi nag la Moussa xam mbir mi nag degré bi mu geestu jàkkaarloog saamir yi waaye balaa muy dem ci saamir yi def na ne yonent yi daan def rek ndeysaan jéggalu jéggalu su boroomam qaala rabbi xfir lii wa li axi wa adxilna fi rahmatika wa anta arhamar rahimin ay yow sama borom sama peuple de liñ def garaaw na trop moo tax de mënuma ci rek lu dul nga jéggal nu yow yàlla maa ngi sàkku ci yow njéggal maak sama rakk ji waaw yàlla nag ñu yërëm maa ngi sàkku ci yow sunu borom wa adxilnaa yàlla nag nu dugal fii rahmatika ci sa yërmande ndax mbir mi dafa garaaw bokkaale dafa garaaw trop yow yàlla wa anta arhamar rahimin yow yaay aji yërëmaakoon gu mag bi suma nazara Musa ila alqawmi allazina abadu al ijla Musa daal di jàkkaarloo nag léegi ñi doon jaamu xërëm bi ñi doon jaamu nag bi yàlla nettali ñu la mu wax ak ñoom ci suratu taaha aya 86 mu ne leen yaa qawmi alam yaidkum rabbukum waadan xasana afa taala alaykum al ahad am aradtum an yaxilla alaykum gadabun min rabbikum faxlaftum mawidi ndeysaan ay waay yéen samay nit yaa qawm yéen sama peuple waaw ndax seen borom diggu leen woon diggu rafet ndax seen borom waxu leen woon dana leen defal lu baax mu defal leen ko aha kay seen borom waxoon na leen naa labal seen noon libéré leen ngeen di yaataa yimbe ci kaw suuf yàlla def na ko labal na firawna alam yaidkum rabbukum waadan hasanan aha kay yàlla wax na leen ko dig na leen ko yàlla defal leen ko afataala aleykumul ahad waa ndax yéen dig bi ma dem waxi jeeg yàlla dafa yàgg wala da ngeen a bëgg meru yàlla wàcc ci yéen loolu moo tax ngeen faussé sama rendez-vous bi ma leen amoon ak yéen kon gis ngeen ñoom dañoo boole yu baree bari moo tax mu laaj leen yu baree bare bi mu leen wax mooy ndax yàlla defalu leen lu baax mu ne leen ndax encore dig bi dafa yàgg seen diggante ak seen borom ndax dafa yàgg wala da ngeen a bëgg meru yàlla wàcc ci seen kaw yii nii am na bu ngeen ci bëgg ndeysaan laqad ama allahu alaykum wa akramakum yàlla day sotti ne ci yéen ay xéewal teral leen wa nasarakum ala aadaikum yàlla dimbali leen ci seeni noon wa anjaakum min batshi firawna yàlla musal leen ci musibaay firawna wa waadakum bil janna yàlla dig leen aljanna wa naim ak ay xéewal almuqim yi sax ngeen bàyyi fi loolu yépp ngeen dem di jaamu nag di bokkaale seen borom yàlla ne leen nag yéen ñi nga xam ne yéen a jaamu woon xërëm bi mbugal mu rëy laa leen di mbugal inna alladina ittaxasu lijla sayanaalu sayanaaluhum gadabun min rabbihim wa zillatun fi lxayaati dunya wa kazalika najzi lmuftarin allahu akbar sunu borom ne képp ku jaamu woon xërëm bi ku jaamu woon nag bi inna alladina ittaxasu lijla ñépp ñi jàppoon nag wi def ko yàlla meru yàlla dina wàcc seen kaw sayanaaluhum gadabun min rabbihim meru yàlla dina wàcc seen kaw waa ñii jaamu xërëm ba léegi nag ñii jaamu nag ba léegi nag gis naa ci benn téere téere tilaawa yaakaar naa juzu xaamis la xaw ma juzu saadis benn waaye di tagg nag di tagg nag ndax nag bi mooy yàllaam di tagg nag bi di tagg nag bi ba fu mu feeweek nag bi mu ne ko bu ñu jàngoon histoire danañ fekk seeni maam sa maam lañ doon jaamu yow nag bi law qara'u taarix la wajadu anna ajdaadihim kaanu yacbuduuna ajdaadik tagg nag ba egg ak moom foofu nag xéewal la bu yàlla wàcce ci xéewali nit war ko jëfandikoo ah wala min al an'am ci xéewal yi ñu yàlla defal la ñu war ko jëfandikoo xarak nagak gëléem même fas sax ci aaya boobu la imam Shafi di wax ne dagan naa lekk li tarkabuha wa zina moo tax fas araamul ci mazhabu Malik lañ ko sib lañ ko sib waaye ci yeneen ngir yi dañuy lekk fas ci ngiru Malik nag ñoo sib fas parce que araamul ku ko bëgg a lekk bu la neexee nga lekk ba nga lekk fas yow nag yow nag parce que yéen xamu leen ko moo tax lekk nga fas kon étudiant yaa ngi wuy leen allahu akbar ndeysaan waaw militaire yi moom dañuy lekk fas kon yéen ñi jaamu woon nag wi na ngeen yëg ne meru yàlla dina wàcc seen kaw waaye toroxtaange dina nekk seen kaw ci àdduna ak àllaaxira xoolal yàlla ne leen wa zillatun fi xayaati dunya toroxtaange dina tegu seen kaw ci dundu àdduna yàlla ne nii déglu leen aaya bi dafa mu fee wa kazalika najzil muftarin fenkat yépp yàlla nee na nii laa leen def ñépp bu yemoon ci ñii rek waaye mu ne wa kazalika najzi nii laay fayee al muftarina ñëpp ñi may fenal di bokkaaleeg man di def leneen naan maa leen ko sant nekk même ñun ñu toog fi aaya bi dugal nañu su yàlla moo wax na ñee kese la déedéet waaye wa kazalika najzil muftarin nii ma toroxale banu israil ci jaamu guñ jaamu woon xërëm bokkaale noonu laay fayee képp koo xam ne bokkaale nga ak man kon mbokk yi dars bii di ñëwaat ci qisasul anbiya jazaau saamiri lay nekk lan mooy fayu saamiri fan la Moussa saamiri mujje ak yonent yàlla Moussa ñu ñaan yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu amee ay laaj